douane bi vraiment respecté le les de carreaux respecté wuñu l'association parce que comment ça fait sénégalais yi imp maanaam sénégalais yi jënd seeni seeni carreaux nekk si fret bi mu ñëw ba douane bon mu ñëw ba port autonome de Dakar le la douane mu indi beneen charte pour yokk dédouanement yi mu doon loo xam ne ñoo koy ndaxaru bu baax a baax c'est pas du tout normal avant tout au moins dañoo waroon yëgal wala au moins ñu jox ñu benn dérogation mais lu gën a yéem mooy augmentation bi duñu arrangé parce que dafa cher dafa bëri auparavant dañu doon fay un million mais fu mu toll dañuy fay bay un million sept cent donc le tout fera deux millions sept cent loolu fan lañ koy jëmee si contrat boo xam ne un million lañ doon fay mu doon loo xam ne rafetul jaaduwul kon ñoom kon ñun jàpp nañ ne lii yëpp lu ko waral mooy pour protéger étranger yi fi nekk mooy usine bi agus tamit indien yi mu doon loo xam ne ñoo koy naqarlu bu baax a baax a baax ñun ay sénégalais lañ ay doomi réew mi lañ lépp luñ am si dëkk bi lañ koy bàyyi